bokki taalibe yi bokki taalibe yi maa ngi santaat sëriñ bu baax ndax daa mel ni sonn na ci ñun lool. merci Mbacke. sëñ bi tax a gore moo baax Mbacke te lu baax la ko rek lay doxe yërmandeem ci ci sunu jëmm yi nga xam ni ndey sànni saa suy wax mi ngi wax dayob seen day ndeysaan baax bi mu baax dem na banaan sax bi sëñ Béthio sunu yoon nekkul ci ndax sëriñ Saliou te mooy sëriñ Touba yoonam a nga ca walaay daa baax rek moo tax nañu rafetal doxin yi nañ leen doon ay taalibe waaw nañu nañu murite xasaay ci sëñ Touba yi nga xam ni ni mu neexee li ci sëñ Touba wax lépp ci seen Tuubaa def ci ci ngëneel nga xam ne mën nañuy toog fii ba six heures du matin hmm. gaa ñi di ko jàng te sëriñ bi dimbali nañu ba defal ñu ci suñu biir hmm. ñu mokkal ñu mokkal ñu ko xam man ko daan ko defal sëriñ Sall am nañ fi ay werekaan yoo xam ne ñu ci mel ni ay Ibrahima Diagne ñoom Babacar Seck ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Tawfekh Mbaye ñoom Papa Gueye Midaal ñoom Xaadim Jaaj Jaaji Jën nga xam ni woy Serigne Touba ca maam Moussa Ka ca ca ca Jaxate waaw loola lu loola lu dagan la lu baax la waaye nan ko sellal nan ko rafetal yenn folklore yi ñu wàññi hmm. ah folklore bi bari soxna yi gis naa ni maa ngi leen di félicité gis naa ni léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi teg di mbokk yi ñu ngi koy musóor di ko defal waaw nag waaw nag dégg naa bu leen ko bàyyeet day leen muuru na lépp yees doxin doxin wuy yees li sëriñ bi bëgg nañ koy def waaw boo deful li sëriñ bi bëgg nooy amee ngërëm boo bëggee ngërëm da ngay def li sëriñ bi bëgg waaye boo ko deful doo am ngërëm kon yéen jigéen ñi maa ngi leen di sant gis naa ni am na sax ci benn benn yoo xam ni waaw waaye ku fi ñëwati na ngay teg sa bopp laa na ngay muur digal naa leen bu dee maay seenub sëriñ digal naa leen loolu daal moom laa bëgg damaa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw ñu ñu am complicité man ak yéen ñu ñuy ñuy waxtaan di gindikoo bu ko defee nawoon rek lay dem waaw de telle sorte que maa ngi leen di sant wax ji lu mu gudd gudd lu mu gàtt gàtt du ma doyal jàkkaarloog yéen ndax yéen day man day lu ngeen ma bëgg maa leen ko raw ndax li tax mooy da ngeen a bëggul lu te man jàpp naa ne kenn gënu bëgg sëñ bi déedéet man nit on ne peut pas se targuer nit mënu maa gën a bëgg sëñ bi c'est pas possible moo tax gëmewuma leen ñëpp ñëpp yéen ak ni sax eh, am naa nu ma demee ak ñoom sax wallaay billaahi barke sëriñ Saliou Mbacké ñoom ñëpp laa yem ñoom ñëpp laa yem bëggaluma kenn lu dul safaan jàmm laa yéene ñëpp ndax xam naa ni sëñ Béthio rek la ñuy tudd te fu waay ne njabootu sëriñ bi kon njabootu sëriñ bi nag ñooy sama njaboot. ah waaw ah. sëriñ bi di wax keroog ci télé bi mel na ni ndeysaan am naa lu ma yëg ci sama xol. waaw ah, waaw ndax yéenewu ma kenn lenn lu lu baax ma sañoon ñëpp am lu baax ba tax na waaye nag sëriñ bi def na ci ndox mu sedd ndax jéggal na ñëpp yàlla na sëriñ bi def. njëggal googu tàbbi ci xol yi ba ñëpp ñëw alaare maa ngi bëgg lool na di sant ñëpp seen siyaaru tey bi daal na ngeen xam ni neex na Lamine mbégte mi fii nga fi tàbbal Serigne Saliou yàlla na la ko dugal nga fi mbégte tàbbal nga ci xol yi nañ daan siyaare sëriñ bi indi na ci man ma bëgg a siyaare ji Serigne Cheikh ànd ko waaw ah. kon nañ ko waajal dinaa jàpp date bi ginnaaw bu ma ci waxtaanee ak moom ndax damaa bëggul a def dara loo xam ni yëgaluma ko ko danaa dem ci moom danaa ko sàkku ci moom danaa ko ñaan mu may ñu ñu siyaare si bu ko defee ñu mobiliser wu mbooloo mu takku la ñuy doon nañu waajal ay yëf ay addiya noonu la ko sëriñ bi daan defalee sëriñ Saliou objet yi ay bagages ah, ah, waaw ay bagages ah, na na doon siyaar bu xob te neex bu ko defee ñu def ko ab dimanche Touba bu fa kenn xat ñu waaja jàngatul maxwaa ca pencum sëriñ Béthio dox lu sëriñ ko si nga xam ne moo jëm ci daara ndeysaan biñ ci waxee moo bari yërmande bi ma bi ma bi ma ko waxee ba ma delluwaat sax di yëglu yónni sëñ Babacar nag ni sëñ Babacar boo demee neel sëñ Cheikh taxe boobu ma doon wax kim la waroon a booleel na la booleeg moom mu yónni sëñ Abdou Khadim daal ne waaw ah, moom day dama koy ñeewante loolu ak màggal di jub xam naa dañ bàyyi ba màggal bi wees bu weesoo mu doog ciy tàbbi màggal bi nag wees na dëgg la gàmmo gaa waaye ndigalam bi mook loolu benn ba tax na maa ngi koy yëgal bokki taalibe bi nañ ko waajal jëwriñ yi nañu organiser wu sëñ Babacar na nga delluwaat ñu wax la nu muy demee boo ko defee bu ñu fi dellu soo koy sànni ñu xayma boo ko defee ñu daal koy jëf dóor ko mu daanu buñ ko dóoree fekk ma wax ak moom mu jox ñu bis buñ koy siyaare buñ koy siyaare ñu yóbbaale waaw waaw kon nag maa ngi neex na am nga ndam am nga ndam ñu ñaan yokk la xew tey kenn mus koo gis tey jii mooy bis bu njëkk ci bis bi nga xam ne muy muy samedi tombé ci ginnaaw màggal gi ñu war a ñëw nag war a siyaat ci kan kooku mooy kan kooku mooy taawu Cheikh Béthio kooku mooy kan kooku mooy Serigne Saliou Thioune ñu ànd ak kan. lay wax Serigne Saliou Thioune lay wax Serigne Saliou Thioune. Serigne Saliou Thioune nga wax ci moom lenn rek la ñuy wax ci moom ñaanal ko mu yàq fi ndax i ñay ah doomi ñay kenn ko ñaanal rëy. te nag doomi gaynde gaynde lay doon. lay wax taalibe lay wax taalibe yi. taalibe yi nañ leen def jàmm nañu àndandoo nañu tool nañu boole xol yi ñun ñëpp nañu xam ni ñun ñëpp daal ñoo xam ne ñoo bokk sëriñ benn sëriñ la ñu am mooy sëriñ Saliou Thioune nañ ko ñaanal mu yàgg fi te ñun ñëpp ñoo àndandoo tàbbi ci màggal gi def ni Lamine Diop def sama jàmbaar bii nga xam ne mooy jàmbaaru Cheikh Béthio ànd ak gaañi indi lu mat fukki kaar ay bus barke Sëriñ Bamba Lamine Diop yàlla na fi yàgg tëwéer def na jëf joo xam ni lii la daan defal baayam Lamine Diop mii lii la daan defal baayam tey bu ko defalee Serigne Saliou Thioune kenn du na guleen waaye nag jëf na ngor de jëf na ngor jëf na lislaam ah kon Lamine Diop waa taw feex nga la lan yow Serigne Saliou booba nañ ko naan yaa waral ma naan yaa waral ñu naan jëf nañu ko sant mooy li ñu war nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko mooy li ñu war nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko mooy li ñu war nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko mooy li ñu war nañu ko sant tëggkat yi sant leen ko xéewal yaa ngi moonu ko jox moonu mbaaxe Seex Béthio moo waral ñu nan jaajëf Saaliwu jaajëf Mbakke yaa yor jaajëf yaa sant leen ko mooy li ñu war nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko mooy li ñu war nañu ko sant mooy li ñu war sant leen ko